billahi min asheytaani ma dellu sant yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa di nuyu bu baax a baax suñu kilifa diine yi di leen ñaanal yàlla ñoom ñu fi yàlla bàyyi yàlla leen yàlla may gudd fan ak wér ñi jiitu yàlla leen yàlla xara àjjana ñoo ñañ fa fekk ak ña leen fa fekk nuyu bu baax a baax mbokk téléspectateurs yi di leen wax ñi jàngeen jëf yéen ñi ñu bàyyi xel yàlla leen yàlla fay te yàlla yàggal ànd bi may nuyu bu baax a baax ñi ci hôpitaux yi di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla fëgg seen bopp te kenn bañ a tëdd maa ngi nuyu ñëpp di dem ba hôpital dixième di nuyu Bour Sine Coumba Ndoffène sama càmmeñ ñu baax loolu maa ngi koy ñaanal yàlla lu mu ragal yàlla bu mu ko gis Bour Sine yaag ña ngeen fa nekkal nag vraiment yéen seen waa bureau boobu mënu leen fay ak képp koo xam ne yaa ngi maa ngi leen nuyu di leen ñaanal yàlla wér waa hôpital régional bàyyiwuma kenn wax fa dëgg yàlla ndax ñépp a baax hôpital boo ci dem dinañ la accueillir dinañ la dalal dinañ la teg ci yoon woo xam ne macha allah laaw la cat kon na yàlla dolli seen xam bu baax baax a baax may nuyu bitim réew bu baax a baax a baax di leen dolli ñaan aussi di leen ñaanal yàlla la leen la ñu wuti yàlla leen yomb yàlla buñ gis leen loo xam ne lu leen jaaxal la wala lu ñuy rëccu te képp nee naa leen képp ku bëgg a ñëw yàlla la yomb lool sax te booy ñëw yàlla nga indaale say bokk li ñuy yaakaar ci yow amin yaa rabbil alamin may nuy bu baax a baax ñi caabi féete ginnaaw ñooñu kenn du leen fàtte yal yàlla génn leen yal na yàlla génn leen ngeen dellu ci seen sago macha allah te képp koo xam ne ñaaw teef moo la fa taxoon na dugg wala ndogalu yàlla yàlla bu la dalati amin yaa rabbil alamin te nag damay ñëw ci li nga xamante ni moo lëmbee àdduna bari fi lool sax mooy ñi nga xamante ni borom kër yi dañuy seen borom kër day dëddu àdduna ñu doon famille bu mag a mag a mag ki nga xamante ni moom la yàlla may mopp fa doole ak njabootam am doole yàlla may leen wërsëg mu lànk na kenn du miraas ndax lan ay doomam am nañu wërsëg kam fa nekkal ay doomam amuñu néew nañ doole ñu jaay leen doole ñu nekk ca kër ga lu waay bëgg ne lu waay neex nga def su fekkee kër ga rëy na ñi doole di fa tabax ñi doole bu ñu waxee ñu ërtal leen wallaahi lazim dañuy dem ba génn leen kër ga sax wala sax ñoom ci seen jëm bopp génn kër ga gënal leen te ñoo ko bokk seen bàyyi ko fa bàyyi ñu waroon koo teg ci yoon te xam ne nag sax alalu bàyyi sax nag wax fa dëgg yàlla dañuy doonu rek waaye ku sañoon sa yëf yi bopp moo lay gënal foofu bàyyi dañ fay bàyyi lu ñu suturloo waaye ki am jom dëgg dëgg dëgg dina fexe wuti lu mu moomali boppam waaye su fekkente ni sa pàppa dafa dëddu ginnaaw nga nekk mag ca kër ga yàlla may la doole say rakk amuñu doole nga leen di néewal fàtt leen li la neex mooy am ci kër ga li la neexul du fa am ñoom nga xam ne amuñu doole ñu mel ay luyaas ci biir kër ga seen yaay du ñemee wax ñoom seen jëmmi bopp du ñu ñimee wax ndax lan yor nga xaalis bi xaalis nag moom defe naa neex na neex goo xam ne loo ci bëgg dinga ko ci am waaye cay sóoral ëllëg waaye ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sedd la kër gi ngay xartu ne doo ko bokk ak say rak say doomu bàyyi te seen papa bàyyi ko fi te leer na ma ni dangaa juddu fekk sa baay tabax kër gi ba pare sa dërëm dugg ci ñiñ ci am rek nga ci am xanaa kay dem ngeen ba màgg ci yàlla yemalewul ubbi na la sa buntu xéewal ñoom ñi nga waroon a secourir jàpp leen te yaral rekk tax féete leen place su baay nga xañ leen ko di leen won ni yor naa ko li ma neex moo fay am sa yaay di la ci jàppale ndax yu ci bari sa yaay moo la ci jàppale léeg-léeg sax meer ba ci boppam mooy jóg ne kenn du fi miraas kenn du fi miraas mu jaral ko mu dugg génn yeew gémmiñ ba kenn du wax di doxal lu ko neex ci kër ga ku fa tëdd miraas boo defee naa ne boo làquwul dina am lu la dal loo xam ne doo ko nettali loolu pour lan la yow moomoo moomaanoo ki moom yéen ñaar la bokkoon jaboote nekk ci ngeen nekk ci biir kër ga waaw waaw wallaahi bu demee fi nga xam ne ñépp a fay dem nag kenn du dëgër bopp ba ni duma dem mënoo koo defal lu baax ba di doo dem amul fii dañoo rosi ku feesal da ngay dem sa yoon boo sóoraalee ni la ngeen di xëccoo ko ko fi indi woon teg ko fi tabax ko def ci xaalisam dem na bàyyi ko fi kon defe naa yoo ma nga xamante ni sa dërëm dugg si war ngaa mën a xam ne nag fii ah lu ñuy xëccoo waru fee am nañ ko bokk te yàlla rekk tax nañu rafetal su miraas waree nañu miraas ku nekk la nga am ñu jox la ko ku nekk la nga am na la ko jox lu xaggalo xam boote doomam war na sax yow ma nga xamante ni yaay mag te yàlla may la doole nga ni say rakk kenn du fi jóge toog leen fii ci bër mbir kër gi lu fi am nañu ko bokk dëkk du wëy yàlla dina wallu ku nekk ku yàlla wallu nga dem jënd sa kër dem gis nga ngeen tàqalikoo ci njëkk ak teraanga gisuma lan moo ko dàq amul gisuma lan moo ko dàq waaye tàqalikoo goo xam ne yaa ngay aw yoonu tribunal yaa ngi yéeg ak a wàcc lan ngeen di xëccoo kër goo xam ne seen baay moo ko fi bàyyi woon ñaaw na de sóoral ni sa baay ba mu koy tabax yow sa dërëm dugg ci xamoo sax fan la ko tabaxee dangaa juddu rek yem ci ngir yàlla yow mi yàlla mën a gën doo jàppale say rakk uuf sa rakk uuf sa macha sa tante ja nga xamante ni mook sa yaay ñoo doon tëbbante ay mbàttu ca biir kër ga waaye nit ku baax noonu lay def man dama naw xaadim si macha allah laaw la cat kooku ba léegi macha allah ma nga toog ci kër baayam nga taaw ko mat fa nag lam fa doon yemale ñépp ñu doon benn kenn xamul ku mu bokkal ndey ak baay ku mu bokkul ak ndey ak xaadim si yàlla na yàlla dolli sa sutura bu baax a baax a baax a baax yàlla na yàlla laf cat ci yow xaadim naw naa la torop ndax nit ki noonu ngay def waaye sa baay wane ginnaaw ngeen nekk ci kër ga di ñasaw ñas yu mel ni lu kenn mësul gis loolu pour lan la waaye yow la ngay soxare say rakk ana nga génn yow ci biti dem tabaxi sa kër dugg fa nag teg nag say rakk nag ca biir kër ga ni leen kër gaa ngoog fii dañ fiy suturlu rekk suturlu kaay dong la loo xam ni dangay dem bàyyi ko fi lan nga ci xëccoo lan moko fi jar waye fim ne ni ni ci mel sax jaadu am na ño xamni ba seen borom keur woné ginnaw ak léegi làq na juróom fukki at wala wéré at mënaguñu koo mirage ndax ka jur dom ju mak mu am doole ma nga tok ci keur ga waaf ne kenn du ko ah ñaamul doole nu ñi def bu fekkente ni yow amoo mbokk mu la dimbali nan ngay def sa yaay dina sonn danga sonn kër ga doo fa ñemee def dara loo xam ne du neex ñee nga mel ni sa baay moomu ko yenn yi nag àq gu rëy la àq gu rëy rëy la ma defa ne nag bu fekkente ni seen papa dafa wone ginnaaw nga jël sa tànta yemale kook sa yaay ji la jur kon coowoo du am mukk te man doomu baay neex na neex goo xam ne ku ko yàlla may war nga koo téye ak sa fukki loxo ak juróom ndax nag doomu bàyyi ci la njëkke ne ci ngay tudde doom ci ngay magale macha allah ci ngay jël juus sa doom joo xam ne sax tubaar fa kàlla macha allah ah mm, sa doom bàyyi amul doom tey jigéen nga yëkkati ko jox ko yépp benn la waaye bu fekkente ni doomu bàyyi dañoo mel ni xaj ak muus loolu yépp du ca mën a am di nga bëgg a maye njëkke doo ko may di nga bëgg a tudde doom doo ko tudde doom te yooyu yépp day yàq famille yooyu yépp mi ngi aajawu ci rek kay mag te am doole te amul xolu yërmande sa yaay favoriser la fal la jàppale la ci defandi loolu mooy wéy sa yaay nag bu doon am na xel mbala muy nit dana xam ni sa baay mi fi def kër gi tôt ou tard nu ko fekki te lu nit ki looy bañ dee fekk la ca dowal bala mu la bala moo dikk ndax mi ngi ñëw loo xam ne mënoo koo moytu fenn dangay daje moom yoon waa ma nga ma nga dajeeg yaa ngi dajeeg moom kon kay loo cay def na rafet kër yi fii jarul xëccoo jarul xiyoo jarul ŋaayoo tribunal gee ba fa taxee ba ñuy wax ay waxi miraas ak moo jël sama moo toog ci kër geeg nee na kenn du ko miraas te mi ngi tabax waru faa tabax surtout ça da ñëw da am doole ne damay yëkkati tabax par force ndax la sama kër bàyyi la te maay am doole ji wallaay la ngay tabax moomoo ko xanaa kay li nga wax rek da nga am doole. buri ak fekke am nga yaay ju doy war da leen di yew dana na ko dugg ci mama ni ken du ngang ken du wax yew na len yeen ñep ba lu ni ni nga ni waaw baxna waye waaye deug ge nga ne le nga xamni bo fa duggee lu ma junni ni te nga fa teud te doon ken topal doon ken topal bu ñu rek wara xamni aduna bi amul solo nañ leen bàyyi xëccoo gi miraas dafa jaadu bu nit wonee ginnaaw nañu ko miraas man miraas sax wax ci dina ma neex ndax man maa ngi nii suñu kër a ngee ba léegi kii miraas dafa ñëw bañ ma woowee ma toog dama ni ko ñun am ñu doom bàyyi am ñu dara ñun ñépp ñoo bokk ndey ak bàyyi jarul miraas ku yàlla mën a gën nga dem tabaxi sa kër dëkk fa loolu lan la noppal nga sa yaay dalal nga say xeli rak macha allah macha allah ñu ngi ni yalla di wërsegal ku nekk ngi génn di tabaxi di dem këru famille la këru famille dafa neex soo demee fee jàkk Alpha Thiombane keur juuf géwal non la amul ben problème ñu fa di xiro ko ngaayo waye ni ci keur yi rek dafa ni ah keur gi mom do fi joggé do fi joggé ila yawmi dini abadan fi ngay da nga nax sa bop xalaatal ni kat ka ko defar won la ginaaw kon jarul xiiroo jarul ŋaayoo damay ñaan ñi nga xamante ni ñoo nekk ci seen kër bàyyi te yàlla may leen doole seen papa yi wone ginnaaw ñu nekk ak seeni rakk di leen bundu nañ ko bàyyi nañ jël seen rakk yu uuf leen xam ne ne àdduna bi amul solo mag mooy baay mag mooy baay te soo bëgg say soo bëggee say rakk respecté la da nga leen di won fulla goo xamante ne fulla gi pas pour nga naqari deret mbaa nga tàng xol wala nga gàtti wax déedéet fulla gi mooy boo gisee loo war a faj nga faj ko te doo ci boole wax lu ci waaye ñëw ni la lii laa bëgg soo ko amee nga jox ko doo ci boole wax waaye su fekkente ni la nga la nga yor danga leen koy won ba ñu gis ko nga fataat ko ci sa biir poche di leen won ni am naa ko waaye duma leen ko defal am naa ko duma leen ko defal parce que bokkuñu ndey baay rek la ñu bokk te baay bi dee na moo waral li bare ci biir kër gi kër yu bari kenn miraasagu leen ndax yu mel nii lillaahi wa rasuuli nañ leen jéem a bokk ndey ak baay àdduna bi amul solo de gis nañ fi ko tabax këram ba dugg rek des yërul kër ga dugg fa xam nga kañ la dugg bañ ko defaree ba war koo yóbbu ci armeere ca lañ nañ ko jaarale ci kër ga loolu ku ko sóoraale war a xam ni àdduna du kër gis nañ fi ku defar kër dugg fa bisam bu njëkk ca la génnaate ñu yóbbu barzaq kon lan lañuy ñuy xartoo lan lañuy xëccoo xam leen ne àdduna bii amul solo ku ko téye téye nga loo xam ne billaahi ni naan wër ñu poqee moom ngay téye loo xam ne dalay nax toujours dalay njuuy mooy àdduna bàyyi leen ñi ngeen nekk ci biir kër yi seen baay bu wonee ginnaaw miraas leen nee naa la sànq miraasal te tëye say rakk ci biir kër gi bu la yàlla mënee gan même boo fa dul mag sax te yàlla may la ko rek bokkal uuf ñépp na ngeen fa nekkoon ba seen baay di dund uufal say tànt uufal say rakk uufal say mag ndax yàlla newul kenn kii lay may ki ko neex lay tànn mu jox ko ko yow ma yàlla may jéem a la jël say rakk nga uuf leen wan ñu doon rekk benn loolu amul benn problème waye su fekkente ne yow li nga da nga len ci jaay mako yor suñu borom di nangu dalé sax bett alal ji nga xam dala koy denk am mi ngi ni def ci lima neex soko ci deful dina ko nangu jox ko kenen toujours nga gis ko yor ba geejel ba defani dotul jeexal mu xey un bonjour dotul dootul dara bu dee la am dina ko jaay lu mu yoron ci xetu materiel dina ko day ndax lan yorona alal di ci soxare yoroon na aral la mu ca war a def defu ko ci suñu borom nangu téye yëfam mbaa mu jox keneen loolu rek moo fi am lool dong moo fi am moo tax dimbalante baax surtout maa ngay dimbali ñi nga war a dimbali yow say rakk la yéen a bokk benn baay boo leen dimbalee wàcculoo ko billaahi wàcculoo ko mi ngi mel ni looy jëmbat ndax suñu borom ku ko lebal ker mu fay la guddi waaye nii ñu ko bëgg a def ñi ñaa koy jooy de miraas yi bañ nañ ne duñu miraas kër ga ña nga toog ca biir kër ga ak kafe bari ñu ngi koy jooylu lu baree baree baree baree baree waaye nañ sóor ni ki ko fi bàyyi nekkatu fi ñun tamit dañuy topp ci ginnaawam te wax doo fekk nit nag gàcce di la fa dal nañ leen sóoraale ni ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sedd la nañ leen bàyyi loolu jéem a xam ni àdduna bi amul solo miraas jaadu na def leen ko ñi ñu ko war a defal ay duma ko miraas ndax bu ma leen bu ma ko miraasee ñoo ma ëpple ay waay miraasal xëy na buñ la ëppalee dinañ am xolu bàyyi la ca biir yàlla mooy maye doom kamu may kay bu bari lee wax fa dëgg yàlla moo la war a ëpple waaye bu fekkente ne loolu moo tax nga ne duma miraas kenn du miraas kër gi ndax bu bu ma ko joxee man ca biti laa jëm te xaw ma fan laay dem loolu jaaduwul teg leen ñëpp ci yoon teg leen ñëpp ci yoon siratal mustaqim may ñaan ci katanu yalla ak baxam ñi nga xamanteni ñu ngi ci lool nañu ko bayyi nañ def ku nekk na def li nga wara def top suñu borom su ko defé do am ben problème ñi sant yalla bu di wax ni maa ngi nuyu sama cameraman yi ku ci melni ni ku ci melni ni fakal fakàll Moussa ak Ulay tay sax Ulay moo filmé nak tay mom ramane la def di baye ulay mu ki nila la ni la nit ki boko ko bu ko soxare baye ko mu dem macha allah laaw la cat yàlla na yalla doli sutura bu baakha a baax te yalla jappale len lima wax kero ay xalé yu yaru ngeen yu yaru ngeen tubar fa ko yalla na yàlla sutura bu baakha baax may nuy la DG Pape Doumbouya di ko ñaanal yalla pap lo ragal yalla boko ko gis kula xaar yalla na xanti yalla na yalla doli sutura bu baakha baakha baakha baax a la biir ak biti may nuyu monsieur Mbeng bu baax a baax a baax waaye géy teraanga duma ko fàtte sama càmmiñ loolu maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla dolli sutura du nuyu maalik sama rak sama xarit papaam Sow Myriam maa ngi leen di nuyu bu baax a baax Modou Aïcha Makumba macha allah waaye tamit maa ngi wàcc dem ba marché maa ngi nuyu ki nga xamante ni mooy euh, musaa mbay yàgg a baax sama boutiquier boobu di nuyu musaa Ndiaye bu baax waaye Serigne Modou njaay ki nekk ci teen bi ah waaw Sophie Sow yàlla na yàlla dolli sutura maam jaara butu mbay ñang maa ngi leen nuyu baax maam ñaaw ma kenn waaye tey damay dem ba ca penda si laa ki nga xam ne tailleur la boo xam ne tubaar fakkal la ku mu kubal yanca la la neex penda yàlla na yàlla doolu sutura waaye bila sarr sama tailleur boobu moom it yàlla na ko yàlla defal jàmm may nuyu baax sama waa kër borom kër bàyyuma kenn yaay boo yàlla na la yàlla may gudd fan ak wér ah, ñu del siwaat ginnaaw nag gi leen fàttali ñetti fan yi ku ko fàtte naa la mere trop trois jours yi may bëgg a lim le 10